مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كل صل وسلم دائما ابدا على ren yalla dogal na lepp luñu daan def yokku nañ ko lepp lo xamne jappon nañ na daw jooni la ñaar jooni la ñett jooni la ren jàpp nañ ne doublé nañ ko ñaar yoon wala ñett yoon loolu nag dara taxul lu may ndénkaane yi nga xam ne jëlee nañ ko ci suñu kilifa mu dénk ko ñu war a fexe ba sàmm ko rafetal ko ñu war a fexe taxaw mu tam képp koo xam ne yàlla dogal na mu gàmmu si ñu fexe ba mu am benn jafe-jafe ba keroog muy delluwaat ci ay mbokkam loolu moo tax tey ñu daje woon nii incha allah di fa yéene jébbale xéewal yi jox ko jaami yàlla yi nga xam ne la nañ ko gannaaw bu ñu paree ci kilifaay diine yi gannaaw bu ñu wëree ci mboolem kilifa yi nga xam ne jàpp nañ ne ñoo tënk dëkk bi tey ci di màggal gu diggante bi sallallahu alayhi wa sallam ñëpp seeti nañ leen ci turu président Macky Sall dimbalante nañ ñoom ci turu président Macky Sall lool moo ñu war. ñoom ñëpp ku ci nekk boo demee ci ñoom da nga daj fekk ci ñoom ak cant ak ngërëm ñeel président Macky Sall. mboolem kilifa yi nga xam ne ranu nañ seen keppaar yi ñëpp amu ci kenn koo xam ne santoo gërëmoo ci taxawaayu président Macky Sall ak jëflanteem bu rafet bi muy jëflantee ak ñoom ak yaakaar bëgg-bëgg nga xam ne wax naa ne euh, keroog bi ñu yàlla dogalee ñu ànd ak moom ci tukki lañ ko laaj mbiram Kaolack mun a àjjuma am na sax ñu ko doon wax ne ko am nga programme mun a Kaolack rek ah. waaye yàlla dogal ñi mu seqak ak àdduna ak ñi mu seq ak Afrique. woo ko soxla ko xam nañ ne Afrique président Macky Sall bu demul dana am ay soxe-soxe moo ah tax mu mujj famm pour dem ci daje boobu yéen ñëpp suivre ngeen ko ci presse bi xam na ma nga woon foofa waaye bëgg-bëggam ak bëgg-bëgg ñun njabootam gi fi nekk mooy ñëwoon yen doog ñun ajuma jullee ñun juma siyaara kilifa yi saafaante ñoom yendoo ak ñoom ba ngoon jot comme ni nga ko defee fépp soo ko wañeekuwaat dakaar jaam ak bëgg-bëggam yàlla ak dogalam waaye nangul nañ ko bu baax parce que ngant bi nga xam ne moom la am ngant loo ko xam ne ku xool rek gis ngant li donc ñëpp nangul nañ ko ko waaye teewut lépp lu waroon def bu fi teewee rek jiital na ko def ko ci ay ndimbal ci ay xéewal ci ay moyen ci lépp loo xam ne jàpp nañ ne bu ko buñ ko defee gàmm gi dana yemb rek président Macky Sall ñëwul teew ci jëmm waaye jëfam ak man-manam umpul gàmm gi ah loolu moo tax dara manqué wul kaar macha allah lépp matale na comme ni ma ko waxee léegi soo su nga xam ne mi ngi ko topp ci ginnaawam tam fu mu tegee tànkam rek mu teg fa ma daan dégg mag ñi baax ñi ni wax ne ñu ngi topp yonent bi wala ñu ngi topp ci Tidiane bu tegee tànk rek ñu teg bu tegee ñu teg waaye soxna si itam ci loolu nekk fu président yend rek fanaan na fa